dina dindi ballonnement. ci njabar gi lay doon ci làmb bi nga xamante ne am na diggante Modou Lo ak ki nga xamante ni moom mooy amaa Baldé ñu gis Modou Lo ay gàllaaj mais jamono mu mujjee bëre takkul dara ba mu bëree ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé dafa daal di koy féete kaw daal di koy dóor dóori métti mu mujjee koo daan. waaw xam nga bu bu nguur nguur su numtu nga ne. Modou Lo déedéet ka ca des. waaw Ama Baldé. takk na gàllaaj gàllaaj gi bu daanoon konoon njibat dana bëri doole njibat dana bari doole torop Modou Lo buñ ko daanoon wéetal yàlla dana tumuraanke kenn dootu ko def waaw moo xam lu muy def nañ bàyyi yàlla mbir yi waaw xam yàlla moo xam li muy def nañ ko bàyyi mbir yi waaw ko defee moom moo xam li muy def waaye Modou loo bu daan woon rek àdduna tukki waaw Ama Balde na gay na gàllaaj yi ñu ko defal baax na xëy na takk na gàllaaj moo takk moo tax waaw lu takk rek baax na waaye daal Modou Lo daal gañe na ko jeex na kon ñakk a takk gàllaaj du mën a takk gàllaaj waaw ñàkk a takk gàllaaj du mën a takk gàllaaj waaw bu ko kaay ma la nag soo ko gëmee mu jëriñ la soo ko gëmul mu loor la nag ah, soo soo gisee li mu def nga def ko danañ la dóor ba nga dee bu fekkee gëmoo bu fekkee ne gëm nga gëm rek moo am solo waaw rek moo am solo nit ki lu muy def na ko gëm waaw xam nga dafa amoon ñaari ñaari nit ñoo xam ne dañu amul gétt eh, gétt gétt nag kii bu xëyee kii buy dem pël bi day saaga rek kottu kottu kottu ba doy ëf na ngi dem yoonam benn du dee kii di jàng ayatul kursi di si ci nag yi bés bu ba nag dee mu ne pël bi waaye yow looy jàng sa sa sa nag ko man di kottu rek laay wax waa ji jëlaat kottu nag di ko jàng moom it nag ye deewul mu ne aha bii moo gën bi ma doon def fekk di ko gëmul boo ko gëmee rek da am ndam soo ko gëmul nag doo am ndam. daal ko ak Fatia am rek daal di daan ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, Ama Baldé la jaar waaw. loolu daal la gars yi di wax. ah gars yi man na waxi gars nag du ma ci waaw ah, jàng Fatia yéen boo sox sam-sam tuuroo moom loolu amul solo waaye daal li am solo mooy takk gàllaaj ak bañ a takk gàllaaj ak lépp gëmal li ngay def rek soo ko gëmee da daan soo ko gëmul doo daan li des mooy làmb ji nag dafa xaaraam nañ ko nañ ko bàyyi xel hmm. parce que làmb ji ni ñi julliwuñu timis julliwuñu gee te buñ paree commentaire nañ ba fajar loolu lépp daganul waaw góor ñi jigéen ñi jaxasoo daganul loolu lépp nañ ko seet waaw nañ seet loolu ne daganul góor ñi jigéen ñi jaxasoo faat waxtu julli te booy aji màkk boo boo naree bàyyi benn waxtu aj màkk aj màkk na ci yow waaw boo naree bàyyi waxtu benn waxtu julli julli moo gën a footi li yàlla bëgg li yàlla santaan nii julli ci gën a foot inna salaat tanha anil fahsaa'i wal munkari boo dee def lu bon jullil boo di julli dee nga bàyyi lu bon tux cigarette ak naan sàngaraak njaaloog lu bon ak lépp looy def di julli ti di ko sellal booy julli bàyyi loolu jaru takk téere jaru naan ñaan dara defal loolu julli rek sellal ko léegi nga bàyyi loolu ku koy ku koy koy julli nag ti doo ko bàyyi julli woo da ngay jullintu jullintu ak julli du benn julli da ngay def dëgg da koy def dëgg def ko mu sell def ko mu wéetal yàlla loolu mooy julli waaw waaye boo ko defee nag nii rek eh, kala palam palam palam eh, julli koo xam ne ku ne xam nga. Eh, te est-ce que euh, ah. aw góore waay aw góore Modou Lo loolu léegi gisuma ko aw góore waay waaw noonu mu def la kooku li muy woote dëgg la aw góore waay li muy liir na xaw ma ko waaw waaye li mu liir xaw ma ko waaye li mu def xam naa ko li mu def loolu la na dem julli ji waaw waxtu julli jot na yaa ngi njàpp doo dem julli nga topp affaire caaxaan yi da ngay dem julli bu ko defee yàlla nag faral la wala yàlla faral leen nga am yàlla rek nga xam ne jaamu nga yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudooni yàlla nee ma maa bind nit ak jinne dara taxul ma bind leen lu ñu jaamu ma su julli jotee demal julli soo amee alal génne ko asaka su weeru koo jotee wooral soo mënee dem màkk demal soo defee bàkkaar yii daal boo ko defee jubóog yàlla waaye boo ko deful doo jubóog yàlla jërëjëf Modou Lo jël na sa jaat julli aw góore waaye. alxuraan bi mu ah, euh, loolu amul amul solo li moom moo ko jàng tiim ko téye ko nit bu fa yoroon kaami sax di ko jàng ti di ko teewlu baax na boo ko boo boo ko yoroon ti di ko teewlu baax na moom kay li bon di ko jàng di ngi sën moo bon waaye bu ñuy dem yoroon di ko jàng mën naa nekk jat nag. bu leen gaawantu mën naa nekk jat waaw bu leen naa nekk alxuraan mën naa nekk leneen waaw waaye daal uh, mu dee leen wax mu ngoog rek waaw. si ba léegi si que bu doon wax dafa nekk ibaadu war déedéet kenn waru laa féetale ibaadu ibaadu yi moomuñu ba takk gàllaaj moomuñu bañ a takk gàllaaj waaw wéetal yàlla rek lañ lay tuddee koo xam ne dafa dem ba gëmatul lam doon def gëm na mu ngi mel ni ku ku jógee ci diine ñëw ci diine lislaam tuub waaw kon la foon la mu nekkoon da ko gëmatul ñëw ci li mu gëm waaw kon nag Modou Lo bu fekkee ne daan takk gàllaaj daan ko def ba mu yàgg defatu ko kon da ko gëmatul li mu gëm mooy wéetal yàlla li mu gëm mooy def ko ngir yàlla li mu gëm mooy euh, ànd ak yàlla parce que looloo koy dimbale loolu la c'est dañoo dañ daan Sénégal la ñu ne ndax aaroo yàlla ana ana yàlla nekku fi <laughs> moomul li ngay wax yëpp yàllaa ko moom nit ñi ñëpp yàllaa leen moom loo gis yàllaa ko moom ku ànd ak loola du la mënal dara qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaqa wa min sharri qaasiqin idaa waqaba wa min sharri nafasaati fil uqadi wa min sharri hasidin iza hasad xoolal loolu qul a'uuzu danaa muslu bi rabbil falaq ci yàlla mi nga xam ne mooy xar fajar gi ba set nga jógee ci lëndëm sànq yaa ngi ci leer te léegi nga demaat ci lënt doo ko seetlu waaw min sharri maa xalaqa wa min sharri gaasiqin izaa waqaba maa ngi muslu ci nga xam ni bu nit ñi tëddee moom mu jóg jël ay gàllaajam euh, ay nenam ay reenam ay lu nekk dem suul ko pour loor nit yàlla ma yàlla musal ci kooku wa min sharri xaasiqin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad maa ngi muslu ci ayu ki nga xam ne bu bu day jël ay pas-pas ay buum di ko fas di di ñaan pour pour pour pour nga dee wala nga torox wala nga daanu wala wala dara daal la di bu defee xëcc wa min sharri haasidin izaa hasad ak ayu aji iñaan koo xam ne daf la añaanee bu demee ba kañaan nga jugloo ko musiba la mën na laa def loo loo mën na laa def loo kenn xamul ñaan ma musal ci yii kay boo ko jàngee jeex na loo bëggati lépp daje na ci bi ci des boo ko jàngul te wéeru ci yàlla jeex na waaw moo loo bu defoon yaramu neen wéeru ci yàlla doy na boo deful yaramu neen te wéeruwoo ci yàlla doo doo mucc mucc ngi ci yàlla mucc nekkul fenn fa du ci yàlla. Euh, dañuy ñëw. wala dañuy ñëw Iran ba tey si li nga xamante ni daanaka euh, waxoon nga si ay jamono fi nga xamante ni moom mooy euh, langum politique bi euh, jamono yële si ginnaaw yaa ngi doon ñaan ngir ñu may taw feex ki nga xamante mooy président Ousmane Sonko waaye gis nañ ni li nga xamante mooy liste parrainage bi léegi tey ñu daal di bloqué lu ni si mois de décembre daanaka ñu ngi si mois de novembre jege na ba tey joxe guñu li nga xamante ni moom mooy liste parrainage am ngir mu xam ndax dana bokk si élection présidentielle waaw wala déet kooku yàllaa ko xam su yàlla ne dana bokk dana bokk bu yàlla du bokk du bokk ñii atti dañuy wax ci lu waaye bu yàlla ne dana bokk dana bokk bu yàlla du bokk du bokk ne ko gëmee noonu ñu gëmee noonu ñi atti gëmee noonu ñu ne ci réew mi gëmee ko yàlla ne dana bokk muy jiiti réew mi kenn mënu ko tee bokk fa muy jaar ba dugg sax doo ko xam buy fay bu yàlla ne du bokk fa muy jaar ba du bokk kenn du ko xam yàllaa xam kii doon président wu Sénégal yàlla ko xam bàyyi leen daw di njëkkante lu dul loolu loolu jot di njëkkante loolu jot jaru ko yàlla moo yor lépp tuutil mulka man tasha wa tanzaul mulka mi man tasha wa tuitu man tasha léegi yàlla ko wax yàlla nee na maay may nguur ku ma neex maa koy jël ci ku ma neex maay teral ku ma neex maay teddil ku ma neex maay toroxal ku ma neex li ndax yiw yëpp sama loxo la kon kay jeex na nañ bàyyi ci loxo yàlla rek li nga coow lii lépp lépp lépp lépp ku yebu rek bàyyi ci yàlla parce que yàllaa yor mbiri yàllaa ñu moom mooy doxal lu ko neex ci ñun lu ko neexul du dox lu ko neex mooy dox nañ ko bàyyi yàlla ah, yàlla moom lu ko neex dana ko def incha allah su ko neexee Sonko dana jël parrainage neexul du jël parrainage am ko neexul nag ah mbir maa ngi noonu su ko neexee mbir maa ngi noonu waaye bu neexee yàlla ñëpp lay neex nag bu koy neex muy mu ñuy neex waaw ndax bu ñuy naan woy àllo garaawu laaj nañ ko jox doo ko doo doo xam kañ la waaye bu ñuy dër lànk lànk lànk yàlla yàlla àndul yàlla lu mu ànd mu am lu mu àndul du am nañ ko bàyyi yàlla rek ràññee ki nga xamante ni moom mooy suñu Papa Ndir bi mu jëlee initiative wax ni ki nga xamante ni moom mooy ko war a jox li nga xamante ni moom ni kuréel yëpp dañ leen a dañ leen a changé indiwaat ñu bees ba mu lëkkat ci kanamu Sénégalais dafa mel ne daa am loo xam dañ koy nëbb wala ba dafa mel ne dafa ki nga xamante ni te ki nga xamante wax loolu ñu bari ak ci ñi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal xam nañ ko ci ki nga xamante ni moom mooy président

président Macky Sall maa ngi koy ñaan mu baal sonk ki ànd ak moom wax ni dañoo war a jox sonk liste de parrainage am wax ni dëgg xam nga lu tax mooy ñu seet yàlla parce que ñu ngi défini bu bu ko jëlee dana gagné nañ seet yàlla ba xam nañ seet yàlla ba xam parce que bu ñu seetee yàlla dinañ ko gis waaye nag boo gëmul yàlla doo gëm yenn boo gëmee yàlla gëm yenn yi parce que wax loolu dafa gëm yàlla waaw. kon nag président Macky daal moo yor lépp moom daal nañu dimbale na ko baal man nag faru mag Sonko faru mag Samba faru maag Demba dëgg rek laa faral yàlla rek waaw lu yàlla rek wax man loolu laa na ko baal wa an taafoo xayrun lakum yàlla nee na ngeen bale moo gën ci yeen de yàlla ko ci alxuraan ngeen bale moo gën ci yéen waaw ndax tooñ ngeen ma tooñ yoo xam ne su ma leen baalu du ngeen mos aljana kon na ngeen bale moo gën ci yéen na ngeen bale wa an taafoo xayrun lakum baale leen kon maa ngi koy ñaan mu baal ko na ko baal du ko wàññi dara moom jeexal na léegi mu dem na ko baal parce que itam bu ko deful itam amul njëriñ yàlla defal na ko ndam ba pare defal na ko sutura ba pare defal na ko teraanga ba pare loolu bu ko yàqaat bu ko yàq ci sonk bum ko yàq na ko baal ngir yàlla ak yonent bi na ko baal wa an taafu xayrun lakum ngeen jéggali moo gën ngeen bañ a jéggali ko wax ci alquran ragal tax na boo bat ko ah, ragal ko ragal yàlla ko gën ragal ko ragal yàlla moo gën parce que ragal yàlla moo gën ragal ko bu ñu ragalee yàlla baax na bu ñu ragalul yàlla mu nekk suñ coono nañ ko ragal rek moom yàlla waaye defe ne buñ ko moom liste parrainage buñ ko joxee dañuy gagné dañuy nangam nangam yooyu yëpp du ci am nañ ko jox rek moo gën a wóor moom Macky daal na ko baal rek na ko baal na ko baal na ko baal waaw na ko baal àq seet diggante mook boroomam mu baal ko wa an taafoo xayrun lakum wa an taafoo xayrun lakum wa an taafoo xayrun lakum su ngeen bale moo gën bañ a bale kon nag na ko yàlla na ko baal loolu rek laa ko ñaan Aïssata Tall Sall génn génn na ku leen fal. yëpp gannaaw yàlla ku leen fal. makee leen fal make mën na leen ñaan. ki leen fal man na leen ñaan. mën na ne leen dimbale leen mën a léegi ngeen bàyyi Ousmane Sonko. mu dem yoonam dimbali leen ma ngeen bàyyi Ousmane Sonko mu dem yoonam ndax yàlla nee na ma bale moo gën ma bañ a bale wa an taafoo xayrun lakum waaw yàlla ma bale moo gën ma bañ a bale kon nag baal leen ma ngeen may ma ngeen bàyyi Ousmane Sonko ñu bàyyi ko moom moo leen fal di comme dàqoon te da nga lànk comme dàqoon da nga lànk da ngay toog kon kay ñaan da ko may <laughs> comme dàq doo lànk di comme dàq doo lànk naan ko damay toog man atti kër laa boo toogal bu weer dee boo fooy fay ko ah voilà yi hmm. kay ne loxo baa ngi bëgg dee. di la di la tàggatoo mooy rek na ko baal rek na baal Ousmane Sonko na ko baal xaj na ci moom moom moo xajul ci Sonko waaye Sonko xaj na ci moom ki xaj ci yow na xajal ko ci sa bopp waaw isa qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum ki ki xaj ci yow xajal ko ci boo ko ci xajalee yàlla dina la xajal ci aljana kon nag na ko xajal mu dugg foofu rek waaw mu jéggal ko amul problème loolu rek laa koy ñaan ñaan waa réew mi ñu dal kenn ku ne jàpp ne yàlla bul nangu mu def la sa otage mu jàppale otage parce que yàlla ku dof dof lu ba mu jàppale otage da nga da nga dugg waaw kon góor lu ñun ñëpp di ñaan yàlla tey moytu lu bon tey def lu baax tey góorgóorlu man daal loolu laa bëgg ci réew mi loolu laa ci xalaat loolu lay sama xam-xam wasalaam